Bienvenue sur Salam Vision. réew moo xam ne kenn du wax yow sa sa sa rakk sàcc suñu pétrole kenn du yow ci sa bopp nga sàcc suñu alal dugal tuuti ci teer naxasal li ci des kenn du wax ngay jaay doole kenn du wax ngay comploter di bëgg a jàpp ay opposant jàpp nga ñaar dese benn kenn du wax sama baat bi dafa sonn dinaa leen tegal audio boo xam ne ci Akhenaton mu am ay information yu wóor yoo xam ne daf ko wax te ñu vérifier information yi ñu bëgg ngeen déglu audio bi déglu ban façon gouvernement bu délinquant la ñu la ñu def face parce que il faut savoir que nous habitons dans un pays où non seulement il n'y a pas de justice mais on est dirigé par des criminels on est dirigé par des délinquants te ku ko waxul waxuloo dëgg parce que ñun dañoo nekk ci réew moo xam ne dinaa leen tegal audio Akhenaton yi après ma continuer waxtaan bi c'est important ngeen déglu ko ngeen déglu lii ngeen di dégg euh, li ñu jàpp SMS bi ñu jàpp SMS bi li tax ñu jàpp ko xam nga ñu bari dañu ne ah waaw SMS bi kuu rek wala nangam nangam déedéet dama bëgg ngeen déglu lii ak jàmm déglu leen. judiciaire mooy jël say kayit yëpp ba doo mën a génn réew mi semaine bi la ñu la demal gendarmerie pointé wane na yaa ngi fi ñu ñu gis xam nga loolu mooy kon yow mu libreto kon yow mooy léegi moo lay famte famte Dior Diagne loolu la bind ci message bi nee na du ñu ko tëj ndax bu ñu ko tëjee réew mi tàkk déglu leen bu baax li may wax de moo bind loolu ci message bi nee na nee na nee na Antoine Diome lay wax de ne bu ñu ko tëj ne Antoine Diome bu ñu tëj Ousmane Sonko parce que bu ñu ko tëjee réew mi dana léegi li ñu war a def mooy nañu summi mbalaanu kiiraayam ba ñu ko summee nga xam ne procureur juge bi d'instruction bi da ko bu ko woowee entendre ko léegi nag désormais mën naa jël passeport ma yëpp tey ku bàyyi ko suuf mën ak dépôt bu ñu ko tëj nañu ko bàyyi mu dellu këram waaye nag mu nekk ci loxo justice nga xam ne dootul tab bi dootul ah. génn ki loxo justice léegi nag ba kañ moom George Diané wax de nee na loolu bu ñu ko defee nag dañu commencé nag génn ci média yi préparé ay reportage fexe nag léegi ba xeex bi nga xam ne moom nañu war a xeex ba nit ñi mën ñoo gëm am sikki sàkk ci Ousmane Sonko nga xam ne jamono bii may wax ak yéen gañeguñu ko ñoom ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoo ëpp ñi weddi Ousmane Sonko kon wax ji ñun ñi nga xam ne ñoo sos mbir mi ñun amaguñ ci ndam ci ci population bi kenn àndagul ak ñun moo tax bu ñu ko tëjee réew mi tàkk bu ñu ko tëjugul léegi bàyyi ko ci justice bi muy dem ak ñëw ba ñu def suñu liggéey ci wàllu communication ci rajo tere yi ba sénégalais yi commencé am sikk sàkk ci moom su boobaa dañu koy jàpp ne ko ràpp ci biir kaso bi nag. dégg ngeen wax ji de lii mooy plan bi moom la Dior Diagne bind di ko bind Antoine Diome mu rëcc dem ci avocat wu Ousmane ko nga xam ne yàlla du nit yàlla du nit kon ngeen gis ne Dior Diagne moo bind plainte ba ca njàlbeen Dior Diagne moo jël si xale bi ca oj bi oto ko ci oto bi Dior Diagne moo ut médecin def ci biir oto ba Dior Diagne moo yóbbu xale bi ci hôpital ba Dior Diagne moo toog ci biir oto bi di manipuler du wàcc oto bi bukku de waaye moom mooy utiliser Sidi Ahmed May mooy utiliser docteur bi mooy dama ko dikk moo ut moom Dior Diagne laissez passer yi Sidi Ahmed bañ ne ko noo def ba génn ci cour bi na ab docteur moo ko utal docteur bi ab avocat moo woote mooy lép Dior Diagne mooy orchestre lépp Dior Diagne nag mooy ñaareelu Antoine Diome ministre de l'intérieur bi ne woon damay mbokk yi li may wax leer na wala leerul bu leerul ngeen ne ma leerul damaa bëgg mu leer nañ ñi ki seen bopp yi tas ci senegal gépp Dior Diagne moomu mooy nañu mbili ci lépp Dior Diagne ak Antoine Diome Macky Sall nekk ci ginnaaw nekk di seetaan lu muy def rek yónnee ko mu reetaan Macky dane Antoine Diome na ngeen ma nangamtaan ndeyal dugal Ousmane Sonko ci biir kaso bi dafa saaga ndey de Macky Sall bu meree day tux cigarette ki Sall yéen xamu leen ko day tux bu meree Malboroom lay taal ci pale bi ku wax mu daggal saaga ndey nangam taan waaye kat leen waaye dugale leen moo ko ci kaso bi noonu lay waxee Macky Sall loolu la wax Antoine Diome nangam taan ndey la muy saaga Macky Sall man Diome mën naa koo wax billaahi su meree day tux cigarette ba noppi day saaga bu joxee ordre lañ doon def bi loolu amee maître Bamba Cissé daal di jël copie daal di jël SMS bi daal koy copier téléphone loola du noonu la demee la bind ca message ba demeewul noonu ñoom dañu ne def leen bu baax li may wax li nekk ci message bi dañu ne ndaw si yónnee message bi te jigéen la sax naa leen wax kan moo yónnee ma kilifa googu xam ngeen mooy kan joor jaañ Dior Diagne bi ñu doon tudd démb ne moo bind lettre bi moo nekkoon ci oto bi même Dior jaañ bi moo doon envoyé message Antoine Diome ministre de l'intérieur la ko doon envoyé Dioum daal di koy yónnee ki nga xam ne mooy maître Bamba Cissé bi nga xam ne moom ci avocat Ousmane Sonko yi la bokk lu tax nag mu juum yónnee ko ko. mooy laata moo koy yónnee message boobu. di ci njuumte moom Dior Diagne bañ ko tuumaalee ne moom moo bind lettre bi moom Dior Diagne moo nekkoon ci oto bi moom Dior Diagne moo nekk ci ginnaaw dama bëgg ngeen partagé ko ba ñëpp jot ko. Dior Diagne moomu mooy ndeyi mbili ji mooy ñaareelu Antoine Diome bi muy nëbb ci suuf te ñoom ñaar ña nga xamante woon ci dossier Karim Wade yi ba ñuy tuumaal Karim Wade. bëgg koo tëj Antoine Diome mii nekkoon fa tëj Karim Wade booba Dior Diagne mi ngi ci avocat yi doon défendre Karim Wade. écoutez ça fa la ko Antoine Diome jaar xam ko di ko fekki këram guddi. di ko yokkataane te di ko def lu ne te la ñu demantee ba takku takku suuf tey jii moo Dior Diagne ñoo ànd Dior Diagne nag mënoo nekk avocat di défendre Karim Wade ba noppi di jaar ci suuf bu guddee Antoine Diome di la seet moo lay xamal ne réew mi yàqu na lépp bu ñu ko waxee réew mi tas dégg nga ko joor Diagne moomu tey jii mooy lënkaloog Antoine Diome message bi Aïda Mbodj di wax man maa leen koy wax tey exclusivité la message boobu Dior Diagne moo doon wax ak maître Bamba Cissé di bokk ci avocat Ousmane Sonko yi di ko xamal ne ko man dañ maa dugal ci coow lu bokkuma ci man li ñuy wax yëpp amul dégg nga maam na ngeen ma ci génne comme xamante nañu ñoom ay avocat lañ seq nañu wax Dior jaañ woo ko di ci di lay di di setal deram di ci pour maître Bamba sa gëm ko ci ne moom bokkul ci mbir meeg yooyu waxa waxa ba mu waxee ba coupé ak maître Bamba Cissé moom Dior Diagne daal di jël téléphone am bind am message di ko yónnee Antoine Diome ministre de l' intérieur bi mu bindee message bi daal di ko daal di bës ci bouton bi envoyé ko yaakaar na ci Antoine Diome ministre de l' intérieur la message bi dem ci Bamba Cissé la <laughs> nga xam ne yàlla booy pexe ak maanaam seen yëf yi du sotti message bi la mu ci bind mooy dañu ko pamti pamte yóbbu ko li ñu jublu nag li nekk ca message bi mooy lii déglu leen bu baax joojaan dafa bind ne Ousmane Sonko daañu def le tout pour summi malaanu kiraayam ci assemblée ba bu ñu ko summee daañu ko di ko yóbbu di ko déglu ak bàyyi ko muy dem ak ñëw ci justice bi malaanu kiraayam bu xasee ba dindee ko Ousmane Sonko léegi nag procureur mooy patron am léegi moo koy wax ñëwal moo koy wax demal moo koy wax jógal moo koy wax toogal loolu mën naa nekk ci semaine bu ne mën na ko ñëwal fu wane wu yaa ngi yaa ngi mën na koo def sous mandat de dépôt maanaam tëj ko ci kaso bi wala mu def ko dégg nga man li ñu jaar ji supprimer message yi benn ndax gis na ne juum na fi ki mu envoyé bi mooy ki mu doon waxal avant muy coupé nekkul ministre bi dafa juum ci ki mu envoyé message bi automatiquement moom Ndiol Diagne mu supprimer message bi mais avant mu koy supprimer avant mu koy supprimer maître Bamba Cissé def na capture d'écran ba téye ba téye message bi <laughs> dégg kon gis nga yàlla bu ànd ak yow kenn mun la daan loolu lépp ay pièces la yoo xam ne dañ koy dugal ci biir dossier bi. dañu mhm. nee na da ngeen dem procès bisimilah Dior Diagne nee na nee na woon day porté plainte am na plainte Dior Diagne bañ ko tuumaay dafa génn damay porté plainte bokkuma ca kër kër Dior Diagne Mariam Faye Sall Tamaro Seydi wax naa leen ko fi keroog ñetti jigéen yooyu ñooy jigéen ñi gën a puissante ci Sénégal jamono bi ñoo yor Sénégal. ñoom Mimi Touré ñoo fi nekkoon am doole ñoom Aminata Tall ñëpp fexe nañ ba. waaw léegi li important moom laa bëgg a waxtaane euh, je pense que dégg ngeen audio yi ojo yi li mu firndeel pour ma répété waatal ko ñi nga xam ne fekkewuñ ko euh, keroog bi ñu demee di jël si ndaw soosu ci suite biw di Dior Diagne moo nekkoon ci ginnaaw 4-4 bi li ngeen dégg ñu ne ginnaaw 4-4 bi am na ay nit yu fa newoon donc Antoine Diome ministre de l'intérieur du Sénégal avec intéret personnel dafa am avocat bu xarañ boo xam ne daf ko takk ñaareel avocat tux katu yàmbaa la nag avocat bi day tux yàmbaa di dóor whisky moom loolu leer loolu leer na ñëpp te aussi elle a été victime Dior Diagne victime euh, euh, euh, réep la maanaam pour doomu aadama yi ñi xamul topp leen jaar-jaaru Dior Diagne Dior Diagne a été victime de euh, euh, euh, agression sexuelle maanaam rape Dior Diagne agression sexuelle mën nañ mas nañ ko koo def mas nañ koo siif maanaam ci addunaam ci dundam mas nañ koo siif nit ku ñu mas a siif la donc Dior Diagne mi ngi toogoon ci ginnaaw kat-kat bi keroog ba nga xamee ne ñu ngi dem jëli euh, ndaw soosu Sweet Beauty Spa bi ñuy monter seen cours bi donc Dior Diagne mi ngi toog ci ginnaaw kat-kat bi bi ñu génnee xale bi mu ñëw ci ginnaaw kat-kat bi moom moo ko bindal plainte bi léegi problème bi am mooy secret bi dafa fuité léegi coow li bi mu nee jo Dior Diagne génn ne wala bind ay déclaration suñu sœur Mati sax Mati trois pommes ci ñi affiché déclaration boobu ci la ñu bokk joor Diagne génnee déclaration bi affiché ko bi mu ko afi ñu affiché mu ne voilà nouvelle bi ñuy génnee ay caaxaan la moom mu jël téléphone am woo avocat wu Ousmane Sonko balaa loolu yëpp nag mu woo avocat wu Ousmane Sonko di weddi di setal deram ba muy setal deram li yàlla di def rek. nga naan xam nga dèjà whisky moom boo ko dooree doo ànd ak sa sago wala nga tux yamba lii tax ñu leen dina naan sàngara wala tux yamba day tax nit perte doo ànd ak sa sago tout le temps donc Dior Diagne madame whisky madame yamba ba mu wooyee avocat bi kaas ne ah en bokkuma ci nangam nangam setal daram wala bu ma kenn dugal bu leen ma accuser nangam nangam mu coupé ak avocat bi xam naa mu ne ñii ñoo ko xaaral mu dem jëli téléphone am ne day yónnee Antoine Diome SMS dem bind nangam nangam nangam waa Ousmane Sonko nañ ko sonal nañ ko euh, traîner sur dans le bu wala nangam nangam nangam bu leen ko gaaw a jàpp wala boo leen ko jàppee dëkk bi dina yëngatu léegi buñ ko jëlee traîner ko dans la boue wala bu yàggee nag bu boobaa incha allahu rabbi ñu dem ci télé yi comme niñ leen koy waxee fan yi traîner ko partout dans la boue li nga xam ne moom mooy mercenaire de la plume euh, travers micro bu ñu traîner loolu yëpp dans la boue buñ ko traîner dans loolu yëpp bu boobaa ñu def lan bu boobaa ñu soog jàpp ñu soog koo jàpp parce que day fekk doomu aadama yi gëmatuñ ko léegi Dior Diagne bi mu bindee SMS boobu comme léegi la coupé ak avocat Ousmane ko bi mu paree bind SMS bi rek dafa juum. Dior Diagne donc li ko dal. dafa dem di préparer njaaxum amu jullit bu set bi nga xam ne yàlla daf ko setal muy usmaan Sonko ñu koy préparer coup d'état ñu koy préparer yàq lu yàlla di def mu jël SMS bi bind ko juum yónnee ko avocat Ousmane Sonko ba mu coupeel téléphone léegi di setal boppam donc pour yéen ñi xamul ngeen yaakaar ne c'est un coup déedéet yàlla moo ko weer dafa doon wax ak nit ki coupé bi mu coupé ba pare mu dem nag di yónnee faram a jëkkëram nëbbatu takku suuf bi Antoine Diome message pour ne ko j'ai tout réglé ndax naa pour moom ci biir boppam ndax na avocat bale léegi mi ngi lijjanti léegi bi mu yónnee message boobu Antoine Diome subhanallah mu dem xooli ci biir euh, kiyam message am ne astafurlah man de jommi yónnee message bi nag kam ko war te yónnee léegi mu dem di supprimer message bi avocat boobu ko ëpp xel parce que bi mu yónnee kooku message bi rek kooku capturé na d'écran gis nga lu yàlla di def donc Ousmane Sonko ñoom bañ koy fexeel seen pexe yi sax dañ koo bindaale ci li nga xam ne moom mooy kii bi loolu moo lay woon saay-saayu gouvernement léegi dañuy dellu si ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi euh, Cheikh Bandia yónnee ko ci beneen numéro bale parce que WhatsApp bi beneen bi laay live nii donc il faut nga yónnee ko ci beneen numéro bi le 646 la voilà 001 646. donc Assane Diouf dinaa ñëwaat ci Ousmane Sonko suñu frère Assane Diouf dañ ko jàpp Assane Diouf dañ ko jàpp dañ ko fekk këram jàpp ko ba léegi nag ñu ne Assane Diouf vient d'être libre. Hassan Diouf vient d'être libre jéggal leen ma ma confirmer attendez je confirme attendez je confirme attendez je confirme voilà nee nañu Hassan Diouf vient d'être libre bàyyi leen ma ma confirmer voilà cette information est importante pour moi may leen ma ma confirmer allo Hassan bàyyi nañ ko ok lan moo tax ñu arrêté ko dafa def live Facebook kan Assane Diouf man o oh, bi waa dig ñëwee biir këram def na live Facebook dooma ko yónnee fii man naa ko wone bi ko waa dig di jëli voilà léegi yónnee ma ko fii ci whatsapp bii whatsapp téléphone bii ma la wooyee nii pas whatsapp bale bii nii xoolal numéro bi waaw enregistré ko nga yónnee ma ko whatsapp ma wane ko waaw léegi yow lu ci waaw léegi yow yónnee ma information bi fii ma jàpp àdduna bi témoin voilà donc Assane Diouf dañ ko jël si këram nee nañu biñ ko jëlee këram intelligent Assane xam xam na leen xam na ne ay nitu njuuj njaaj la il a fait live Facebook nee nañu go to his page waaw Baye Fall yi defe naa yegsi nañu baal leen ma wax ngeen dëgg Baye Fall yi Baye Fall yi yegsi nañu Baye Fall yi yegsi nañu voilà donc Baye Fall yi yegsi nañu nañu dem xool Assane Diouf léegi nii trois minutes vidéo direct station mi ngi nii Assane Diouf get plenty of attention. Yeah. non non non non. Eh, Cheikh Cheikh Cheikh. ok Assane Diouf a ngi nii vidéo arrestation. non eh, Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh. bàyyi leen ñu def lu ñu bëgg a def. yeah non bàyyi leen. yeah Sénégal ah, man la Assane Diouf encore xam nga maa ngi dem live direct. xam nga waa dëkk yi ñëwaat sama kër xam nga nee nañ par force xam nga jox leen ma ko sama wax naa samay avocat wax naa ak ñëpp xam nga nee nañ par force dañuy daj yi seen martu la yor nag ak seeni bagage comprendre nga eh ndewali arrière fële bu leen bu leen def dara bu leen def dara bàyyi leen leen ñu def lu ñu bëgg a def bàyyi leen leen bàyyi leen leen parce que wax ñu ngi wax ak seen seen commissaire ci boppam bàyyi leen leen bu leen bu leen bu leen nekk di def dara

defal nga damay caméra. non non donc boobu mooy vidéo bi xam ne dañu dem fekk Assane Diouf këram euh, dem jëli ko dañu fekk Assane Diouf këram léegi ñu dem jëli ko te teguñu ko ci benn yoon. ngeen dégluwaat vidéo bi ñun ñaar ñëpp. nii réew jaay doole lañ nekk. dañuy jaay doole. Eh, eh, eh. jaay doole jaay doole la. jaay doole askan wi ngeen di war a nekkal. affaire jaay doole lañuy def. nii nii rek. ñoo kër jaamu di gasal yi. affaire jaay doole. convocation ngeen di. ñoo ko jox borom. ñu dem affaire muy wuy ji. réew jaay doole. waaw nañ dem ñu def ñu gën a laal. dañuy daaj yi seen marto la ñuy wax nag ak seen i bagage comprendre leen def def bàyyi leen leen parce que wax lii ak seen seen commissaire ci boppam. bu leen ko bu leen ko bu leen ko def dara lu ñaaw nag. non dañu see def dara lu ñaaw nag. bu leen ko jaajëfale bu leen ko def. bu ko laal bu ko laal bu ko laal bu ko laal. da ngeen koy def jaay doole dañuy jaay doole. réew jaay doole lañ nekk jaay doole jaay doole jaay doole jaay doole jaay doole ngeen jaay doole jaay doole dañuy jaay doole réew jaay doole lañ nekk réew jaay doole réew jaay doole lañ nekk réew jaay doole. ñun ñoo déggandoo lii. Assane Diouf mi ngi këram. deful waxul te defe naa bu fekkee àdduna bëgg naa seede àdduna seede na ne Assane ba mu génnee kaso bi yoon ba léegi mësul wax wax bu deborde day wax dëgg nag waaye teg ko ci yar ak teggin man naa ne sax amaanaa man naa ko gën a garaaw léegi ndax yi génn sama gémmiñ génnatul gémmiñam Assane Diouf waxatul benn wax boo xam ne jaggi na dayoo waxatul wax bu débordé te ñun ñëpp les sénégalais on est témoin musul Assane Diouf bi mu génnee kaso ak léegi génnewul benn kàllaama ci gémmiñam boo xam ne dafa débordé bu amee lu muy wax daf koy wax teg ko ci yar ak teggin parce que loolu lañ ko digal ñun ñëpp ñu waxtaan ak moom mu may ñu ko waaye sa se voit que sénégalais yéen a ngi déglu te yéen a ngi gis te yéen a ngi seede te yéen a ñaanoon ngeen ne Assane Diouf vraiment wax yi muy wax mu débordé rek. moo leen déranger ci moom donc on vous prend témoin Assane Diouf waxul dara lu débordé deful dara lu débordé police dem na ko fekki këram jàpp ko encore une fois nous prenons les Sénégalais témoins Assane Diouf Macky Sall la ko fenal moom ak gouvernement am coup bi ñu monteel Ousmane Sonko nii boobu coup la ñu monteel Assane Diouf ba mu joge Amérique ba yegg Sénégal parce que dañ koo jiiñ terroriste naqar booboo nekk ci xolam ba léegi Macky Sall li mu def Assane Diouf dafa ko jaarale ci Babacar Diagne ki yor signalu tala yi Sénégal tey doomu xaram boobu mu accuser ko terroriste mu woo gouvernement Amérique bi ne ko seen doom bi terroriste la Bienvenue sur Salam Vision.